jumtuwaay yu am solo li ci mel ni imprimante ordinateur ak li ni lii di ay ndimbal bi nga xamante ne ñii di ay ancien lycée wu Ngalandou Diouf ñoo ko daal di jagleel seen école mu nekk ab geste de reconnaissance. jàngi bi fi jógee léegi euh, euh, sunu professeurs yi ñu fi nekkaloon nekkoon ay professeurs yu baax nekkoon ay professeurs yu amul xam-xam. ay professeur yu am daraja macha allah def ci ñun jom def ci ñun fulla ak fayda def ci ñun xam-xam ñun nag ñu ñëw ne 25 ans après loolu warul nax saay. bi les gestes nekk lu neex kii di proviseur u lycée bi Ibrahima seen di ko rafetlu. instant bi mu ñëw dafa fekk ñun ñu soxla ko parce que ñu ngi ci fin d'année donc composition yaa ngi ñëw examen yi donc lii moom daf ñuy arranger vrai donc nous ne pouvons que leen sant leen. xam ni ñu am sutura lañu ñu am ils sont reconnaissants. yi la jumtuwaay dina mën a amal njëriñ bu baax ñi di élèves yi. initiative bu baax la daal parce que ñun élèves terminale yi dañuy soxla ay papier pour photocopier pour réviser ak ak bac bi et tout yooyu noonu et ñu doon bañ di génn ci ecole bi di dem photocopier feneen et di perte temps yooyu noonu léegi ci école bi la ñuy photocopier ak imprimante bu ñu bu ñu pour mën a réviser bu baax. ñaari fukki at ak juróom ginnaaw bu ñu génnee bile école di Ngalandou Diouf ñii di ay anciens bokk ci promotion 1997 98 ànd ak seeni ay anciens professeurs ñoom ñoo daal indi bile don ñoom nag ñu profiter rek ci occasion bi ngir rek ñaar ñi di nouvelle génération bi ñu gën a toppatoo seen jàng comme ni mu waree.